ma déranger gaañ bariwul dara gan, wax nga triste nii gaañ boobu bul sax lijjanti xoolal booy bu ma mayoon laa bëgg woo fi bàyyi da ngay quoi da ngay di plané rek même ma ko ok dal allo boy allo pa mais foo nekk ni depuis suba boy maa ngi lay boy jëloo No maa ngi di ñëw presque yegg si naa booba léegi gaañ non pa xaar ma nice na ok booy nii rek la ñuy def da nga leen bëgg a gañal xool du ñu xam seen bopp. ah booy yow booy yow da nga bëri booy sama rek yéen ñaar mënoo leen bàyyante. moom defe naa nga lii moo tax xoolal sama ànd ak yow sax dañ koy seetaan. waaw ba mu ñëw man xam naa lépp. mosoo far ak man. <laughs> da ngay

magaya di man balagay Nana baby, dakaragale Wala ba, man bidama manul am day. nga dem ma dem a dem yàgg nañ ma waa doo góor de waaye léegi daal man xam naa yaay kan non fils non fils bul mer bii fal toogal jëlal sedd naanal xibbi say jot xool tabañ a topp ubbi say nopp waa déglu li ma lay taajal ok coo yow da ngay plané dëgg dëgg da ngay weere mënu moon sib ne san life mu neexe woon nga xëy soppi jëkko ji boor wala boog léegi da ngay toxi boor ma bu baax dafoo jàpp la lii door nañ ko saaga xas génne ko këram ndax yow xanaa nga war koo yërëm Je suis en compagnie de Chicago et Commando d'Africanity. Chicago et Commando d'Africanity Family. Ah, gars, guy, maa leen di mais tout est original là, Shingo. Shingo. Shingo si. mais Shingo Shingo Shingo si. Shingo si. si mais booy. est-ce que Shingo si lañ la def sa quarante. waaw non noonu la ma paa bi tuddee moo nekk samay pièces. Shingo si ah moo nekk sama tur artiste aussi. ah moo nekk aussi sa tur artiste. Ah. Shingo naka la. waaw sant borom bi. mbaa lépp jàmm waaw alhamdulilah. commando est-ce que moom moo nekk tam ci quarante. waaw ah, ko commando du mu demee. waaw ah, si àll. mbaa lépp jàmm sant bu wér-wér. si commando moo nekk ci kii bi. non non non. du commando de du commando waaw. <laughs> ñu ngi siyaare. <laughs> Shingo yi commando. alors euh, gars yi fi nga dëkk. waa ñu ngi jógee Kër Massar. Kër Massar fier d'être Massarois. fier d'être Massarois. banlieue for life. banlieue for life yeah man euh, j'aime bien ce, ce concept de fierté euh, des jeunes banlieusards euh, puis euh, dans le temps euh, nga doon bus xam nga town di wane ni town nga dëkk parce que da nga doon rusa wax ni waaye nga dëkk mhm. wala di russa wax ni euh, parcelle nga dëkk mhm. wala ngay russa wax ni maa ngi jógee xam nga mhm. euh, tëngeej wala yu mel noonu mais léegi xoolal dañ koy gérer dañu am suñu xam nga maturité à 100 pour cent géré carrément alors euh, fier d'être massarois euh, alors dites-moi euh, vous êtes en train de parler à une jeune fille dans un style

ci son bi. Ah, euh, mais pourquoi le son téléphone. waaw donc dama ko durant la journée pour jox ko rendez-vous au finalement nag ma jot ko téléphone bi am ci yoon quoi. ok euh, finalement nga jot ko téléphone. Mhm. son bi que son téléphone carrément. Non, la dame. Hein? c'est très inspiré mhm. euh, alors c'est quoi Africanité Family. okay. Africanité Family du du groupe association là quoi. Ah. association socio-culturelle boo xamante ne ñun ñoo ko teg Kër Massar. Mhm. ay artistes yu bari nekk ci ah artistes commune bi amna base base ci Kër Massar Guédiawaye dafa yaatu quoi. bon lool moy africanité family pour gars yi xam nga doon benn blog job mhm. xam nga bañ xaar ken quoi. Mhm. Lool moo tax ñu tek ko quoi. ok alors euh, kii kon benn la ci ci ci ci ci crew bu mag boobu. waaw benn wa benn crew la ci connexion boobu ci association boobu. ok euh, alors euh, mën nga ma wax qu'est-ce que vous avez fait jusque là qui soit positif waaw boo xoolee bu baax euh, africanité euh, francophone bi Japon na ci parce que boo xoolee ay géejawaay amuloon plateau ay caaroy mais yàlla defoon na ni le maire Japon na ci ba ñu teg fa plateau ak un nommé Ndiaye Rose francophonie def nañ ko. Mm-hmm. koor gi passé def nañ benn ndogu de solidarité bu am doole bi nga xamante ne xam nga jël nañ ay valeur de 300000 def ko ci ndogu de l'école. les population de la commune. xam nga ay œuvres yu mel non, dem nañ ci école aussi. Mm-hmm. durant les euh, l'année scolaire ak CLA bi def ak ay programme def ak ñoom ay affaire faire une innovation la dedans mm-hmm. association socioculturelle la. Mm-hmm. artistes qui sont pilotés, mais acteurs de développement ouvriers étudiants. Mm-hmm. alors euh, c'est quoi l'engagement de cette association euh, vous vous êtes engagé

kon dootul am problème booy def soirée say gars bu ñëwé rek soirée bi day fees comprendre moo tax ñu tek affaire boobu nonu quoi groupe bi yëpp ñëw gars yi teew <laughs> te crew bi amna ay maire amna ay pa loolu mm-hmm. si gën a muy association bi ñëpp ci ànd ay maire ay pa ok ok alors euh, yéen ngi wax ni da ngeen di lutter contre la drogue et c'est un engagement personnel c'est l'engagement de c'est un engagement de l'association waaw yalla dafa def ni comme niñ la koy waxé suñu engagement bu ko wa commune bi gissé on nommé Lamine Diaw mu am un projet triennal sur la drogue mm-hmm. andi won ko ci 3e adjoint au maire donc mu xalaat que ni commune bi yëpp africanité rek moo war a mën a porter combat boobu. Mm-hmm. léegi nag ñu soobu ci. am ci mm-hmm. liggéey bu am importance boo xamante ne d'ici peu de temps incha allah dinañ fi dellusiwaat te dina nekk en exécution. Mm-hmm. waaw euh, naka ngeen compté organiser euh, engagement boobu noonu. waaw engagement bi moom connecté artistes yi. bu ko defee à travers artistes yi ñu mën a am toutes les couches de la population. conscientiser leen ba ñu bañ a jëfandikoo cinébar bi ndax tey yow boo taxul peut-être sa benn frère bu la jege mi ngi koy utiliser te xamul mefey ci nekk te yow xamoo donc engagement bi loolu la daal. Euh, vous parlez de zéro violence euh, vous faites allusion.

si la bokk quoi moo tax instant bi nii gars yi nga xamante ne ñoom porteurs yi ñoom ñoo war bon bon lu rafet loo xamante ne gars yi dañ siy bàyyi xel quoi hmm. moo war nga gis ñu ne nawetaan zéro violence am projet bu ñu ko tegal am na ay son boo xamante commune bi artistes yi nekk dañ koy def def compilation boo si si loolu lay wax quoi avec appui de maire parce que suñu maire Moustapha Meng moom it mu ngi ñuy jàppale seetaanunu tout le temps les projet bu ñuy def day appuyer day appuyer di si def xaalisam bu baax baax ok ok hmm. euh, en tout cas ñoo ngi leen di encourager ah, c'est pas c'est pas évident hmm. hein, d'être euh, euh, surtout bolo mon metti ah, ay nit yu daje yu bari euh, yombul et tout ça euh, mais aussi gis nañ vidéo bi c'est c'est c'est une vidéo particulière ah, et puis la réalisation dans la rue le son téléphone ah, c'est c'est c'est c'est très chic kan ngeen remercier bon ñu ngi war a remercier bëri naa dafa bëri li si remercier waa Kër Massar yëpp non non non il faut ñu am ñun si de ku si mel ni suñu sëriñ baax yi ñuy jàppale sëñ def maam Ousmane ñu ngi koy siyaare monsieur le maire maire Aydara xam nga waa Kër Massar yëpp waa Tëngéej aussi parce que sa waay dafa ma waaxu man Tëngéej laa dëkk foofu mooy sama koon maa xew ñoo Pas mais far di bëgg waa Tëngéej waa waa xam nga si mais bu am na benn son boo xam ne dañ ko defaloon TFM.

képp ko xamantene ne limu limuma la parce que buma limé rek damay djum kep ku ci japp xam nga sa bop ñu ngi lay bégué di la jox cër bu mat seuk jaajëf merci beaucoup merci à la petite maman Ndiaye qui habite les HLM que nous félicitons pour le BFM